ma topp leen ñu dawloo ma ba sama ba sama biir wàcc parce que man je couvrais quand même euh, élection législative yi topp naa ku ci nekk sa caravane waa Yewwi Askan Wi jaay ñu benn projet boo xamante ne gagné la plupart euh, des communes fii nii di demee législative itam ñu gagné ñu def benn rafle bu extraordinaire fii nii di xeex mais est-ce que jamono ji Khalifa Sall ak dayo bi ko Sénégalais yi jox ak peut-être respect bi ko Ousmane Sonko ak ñi ñi ko jege ñëpp jox jamono ji mënati na dara est-ce que du ambition bu ko ci nekk am jamono ji moo jël le dessus Jérôme nañu wax dëgg gi Jérôme Jérôme Jérôme nañu wax dëgg gi te teg loxo bi. Jérôme <laughs> mooy Jérôme ñun kan moo ko kan <laughs> loo xam ne ni moom léegi lan la nga ne. fans club la fans club kan. <laughs> fans club. fans club kan léegi nag ñun fans club. Aminata lañ teg xalifa moo ko ne kan moo ñu fa kan moo ñu dañoo gis benn communiqué lan moo indi li tas yeewi ñi bëggul ñu. bi moo ko indi. ban dialogue dialogue bi xalifa dem wuy ngeen dem boobu sa leer na boobu kay du dialogue guddi au moins boobu dialogue bu bëccëg la ak suba teel ñëpp di gis ñëpp di dégg. ban dialogue guddi guddi guddi moo fa am. yeewi dañoo waxante woon lu leer. am ah. suñu charte. waaw ah. ne ku nekk bu présidentiel jotee nañu ànd local. Mhm. ak législative. bu mhm. présidentiel jotee ku nekk na nga ànd waaye nañu bàyyante xel. au mhm. deuxième tour. ay mini manipulation ñëw di wax lu nekk. mais charte bi dafa leer ñun ba ñu ñëwee kenn invité ñu invité nañ dañoo invité. taxaw invité Pastef invité ku nekk institut pertoraay ku nekk dem ci sa parti laaj ñu invité Yewwi à part foofu la laajee ndax bi ñu invité parti bu nekk mm. Yewwi leader yi boobu ku nekk yaa ngi xalaat sa bopp bu ñu xalaatoon toujours Yewwi kon dañ naan ñun en tant que Yewwi nañ toog waxtaan parce que suñu parti yi ku nekk am nga invitation mm. Yewwi am na invitation léegi kon nañu waxtaan ñu xool kan mooy nekk suñu délégué waaye boobu ku nekk yaa ngi xool sa morom lii morom lii parce que jàpp nañ ne li ñu waroon boole jeex na alors que jeexu gis nga zéro fii ba ba ñuy dem élection mu neex mu naqari ku betul betul laa la wax de mm-hmm. da war a xam ne ni dañoo war a ànd ndax fii ba ñuy dem muy premier tour muy deuxième tour ku nekk di nga soxla sa morom mm-hmm. kon dañu war a ànd nous on xoolal yàlla moo def dañu war a ànd loolu mooy logique loolu mooy lu intelligent kon ñun dara du jóge ci ñun yeewi jógewul ci ñun li ko indi ñun dañoo jot communiqué mhm. te li ñu waxoon am am nañ dëgg mais ñu ne charte yi waaw ñu ne charte yi am na fi kan moo dialogue guddi ah, dialogue guddi amu man ñun Alioune Tine jóg na fi wax euh, kii euh, nu mu tudd ah, kan moo leen démentir kan moo wax ne kenn yónniwule ate pas wax na loolu dialogue guddi la ñun nag dialogue bu bëccëg lañ def ñun dañoo taxaw dem laaj suñu ay base ñu ne ñu xalifa demal ñun ñoo la jox ñun ñoo la jox kitis demal yaay suñu président demal mu dem bëccëg la mu fa wax sénégalais yëpp dégg nañ ko wax na nañu libérer les détenus hmm. li tax ñeneen ñi ñëwul wax na ko nekk il faut que ñu def mu gën a am confiance nit ñi gën a am confiance ci pour ñëw waa yeewi yële yële dañoo waroon ñëw fii ñàkk confiance moo tax ñëwul kon waxal na waa na sénégalais loolu bëccëg la woon ñëpp gis ko kon ñun ci li ñu ne woon ñu ngi ci de mu suñu cee jóge léegi nag am na yoo xam ne nag duñ ko seetaan waaye ñun yeewi yàquñu ko ñi ko ñi ko transformé bàyyi yeewi. def ko fans club ñun loolu. fans club bu kan la Aminata ah ñëpp xam nañ ah déedéet ñëpp xam nañ fans club la rek xam nga fans club moom mun na nekk fans club ku nekk. waaye foofu mais leer na leen du xat fans club xalifa. ah mais leer na leen du fans club xalifa. ah xalifa jógul ci nekk ci ay fans club ndax moom <laughs> yorul micro di wayu leneen moom politique lay def <laughs> coalition la yor. mais est-ce que dama la wax sànq nga nga nga nga bañ ma cee tontu moo ñëwaat manaam ku ci nekk yor sa ambition bu yore réew mi moo indi lii lépp. waaw si nee que soit alpha zéro voilà dans l'adversité mais on peut avoir de la classe loolu laa dans l'adversité fii adversaire bu ne am na fi fàtte ne yow 2000 CA moo dem jëli Ablaye Wade. des partis de gauche. ku la waxoon ne yow gauche ak droite ñëpp xam nañ. Mm-hmm. mais ñoo dem jëli Ablaye Wade fàtte seen bopp. jàpp ne Ablaye Wade mii buñ ko fi indee. boobu Ablaye Wade mu ngi leen naan ana moyen nuñ koy defee ñoom ñoo jël outil moyen outil oto. ñëw indi foofu lañu war a toll ñii ñenn ñi nag di def yëfu xale yëfu xale ñu nekkuñu ay yëfu bébé ñu nekkuñu fa ñu nekkuñu ci crèche. ñun politique la def ku nekk ci crèche na dem jàngi. Euh, Aminata li xew keroog am nañu jàpp ne euh, prolongation la diggante Ousmane Sonko ak Khalifa Sall mu wàcc wala ngaan ba ci militants yi partisans yi est-ce que tey mun nañu ko gisee noonu que ne xeex bi amoon keroog ñagas-ñagas yi diggante Ousmane Sonko Khalifa Sall noonu la mel. man de peut nit ñi jël nañ ko extrapolé ko ahamba mi di ko ak yooyu mais man. dégg naa fi lu ne gis naa fi lu ne mais man li ma xamee xalifa ak Ousmane man de gisuma benn coow seen diggante. Hmm. peut-être nag waa Pastef am nañu ay temps xëy mere Barthélemy ci ay dëggam pour pourtant dëgg la wax dëgg yi mu waxoon mu ngi ñëw. mooy lan dialogue bi. newoon na leen lu mu yàgg-yàgg di ngeen dialogue ndax mu génn te nañu dialogue pour Ousmane bañ a dugg ndax mu bañ a dugg mooy sunu intérêt ñun ñëpp kon kooku bañu Ousmane koo xam ne bëggul sax nga dugg xam na ni yow di nga dugg. ne noonu nañ dem ca dialogue ba Khalifa bokk euh, Karim bokk yow nga bañ dem prison parce que waxtaan moo koy indi mais dugg na prison ba yàggul de matagul un an te terewul dialogue guddi am na donc li Barthélemy waxoon loolu la ñu ay nit ñoo ko extrapolé comme d'habitude xam nga bëgg yàq ay diggante ñun ñoo ko war a bañ seetaan xalifa nitu jàmm la loolu la ko ñëpp xamee ñëpp la sekkal jàmm. mais su fekkee tey tey tey tey tey tey xalifa bu décidé woon dëgg dëgg dëgg ak ni ma xamee. wax ak Ousmane Sonko wax ak kii kii dina ko def te xam naa ne nii tànk yi mu jël pour le Sénégal dina ko def pour le Sénégal dina ko def dem waxat ak ñépp ne leen objectif bi du ñun ñii nañu fàtte suñu bopp nañu xalaat suñu réew. mais est-ce que nañu xalaat ñii ñu faloon ci local yi amoon confiance ci ñun. mais lu tax loolu def ko bu yàgg lu tax loolu def ko bu yàgg. parce que mais xam nga entre temps entre temps ku nekk lii xew nii développement yi mu gën a yokk léegi la. entre temps ku nekk yaa ngi woon si sa parti yaa ngi doon def sa ay tournée nekk ñu coon lii ba ñu demee ba gis na ni rapport a ngi ñëw ñu lii xeeñ neexut ci la nit ñu commencé waat di regroupé waat ñëwaat à la base loolu moo ko indi donc na sëgam ñun ñëpp ñëwaat nañu xam ne ni lii ci suñu kaw ñun ñëpp lay wadd non attends lan moo tax ba duñu mën a waxtaan bu fekkee ne Sénégal moo ñu tax a jóg mais Aminata boo ñu bëggee gëmloo ne aussi entre Khalifa ak Sonko y a problème te Sonko nekk ci prison boobu ba léegi xalifa Sall demul sax seeti ji ko ak li ñuy wax ne moom moo nekk seen diggante yëpp si lu rafet aussi on se pose des ah, questions. léegi da ngay xaar ba wax kër Sonko yi ñëw fii parce que Khalifa bokk na ci ñi njëkk am. Euh, certificat pour dem seeti Sonko. permis léegi nag permis pour dem seeti Sonko léegi da ngay laaj ñoom bu ñu. ah Khalifa am na permis. Khalifa am na permis yàgg na. lan moo tax seetiwu ko. li si des xalifa moom dina ko dina seet xamoo ndax gisante nañu wala gisante woon man xaw ma mais mais su nekkoon gisante woon moom dina siiw mais xam naa ne xalifa moo njëkk am permis wala gisante guddi la wala gis gisante guddi la kon loolu seen yëf la politique moom politique moom waxtaan mais mais ay kilifa moom lu leen neex ñu def ko mais su dëggante bi la taxoon loolu Aminata Diallo nekk yoonu keneen nekk ci ñun li ñu bëgg rek xam nañu xalifa ba nit la mooy nitu dëgg la nit ku sage la yàlla moo ko defal te li tax mu def ko la posture d'homme d'état bi muy incarné ak bi mu nekk moo tax. xam nga man dama déggoon xalifa mënul am permis mais yow soo ne xalifa. am na permis xalifa am na permis yàgg na. léegi dañ ko bañ a recevoir wala dañ ci laxas jaan wala qu'est-ce qui se passe. non du question bañ a recevoir wala leneen. il a fait le déplacement def na déplacement. dañ ko bàyyi xalifa xalifa dina ci wax waaye xalifa bés bu waree dem dina dem. te xamoo ndax dem na wala demut. ah bu demoon kay dinañ ko yëg moo ma laaj la ko ndax su fekkoon tey ña nga xam ne ñoo dem ci Ousmane Sonko yëg nañ leen yëg nañ ko. déet yëgul de. ah, ah, ah mais mais leader dem non leader dem yi nag. zéro leader politique yi déedéet. leader man moom mais quand de leader politique déglu ma xalifa ba mu nekkee ci prison bi fii. amul ku fi dugul di ko seet. te du ñëpp la ñëpp. waaw mais dama nekk. ku nekk ci prison neex nga génn nga bës. mais une personne comme Khalifa Sall la nag lan Khalifa tolluwul foofu. mais tey une personne comme Khalifa Sall mais tey mais tey une personne comme Khalifa Sall tey. puisse dire su nekkoon dem na seeti Ousmane Sonko dans dans l'une de ses déclarations dina ko évoquer wala sax wax ne ne Ousmane Sonko gisee nañ ci lii ak ci lii parce que chaque fois dañ koy laaj ci mbir moomu wala su gisee su amee xanaa gisee guddi la bokk. waaw mais ak lu mu mënta nekk. xam nga man new ma la xalifa dem na wala demul nee naa la rek am na peine. Mhm. li si des nag barki Dembo Ndiaye bi ñëpp le dimanche là le vingt cinq février foog naa ni. Mhm. loolu jour boobu baromètre la te histoire la aussi jour boobu du leader yëpp. Mhm. retrouvé wu biir biir taxaw le siège de taxaw et y Amadou Ba. Mhm. le mandataire de de de kii. de pass euh, de Diomaye président. kon nga war a xam ne ni gis nga coow li coow li dafa am ñu nekk ci ginnaaw rek di wax parce que loolu moo leen arrangé mooy ñu ñu séparé wu ba Macky sàll am ndam suñu kaw ñun duñ ko seetaan te xalifa Sall du ko seetaan. kon li taxoon ba jour boobu ñun ñëpp ñu daje. ba ñëw ba ñëw ba foofu. teg suñu ay urne di voté ànd. dem wal fajiri loolu mu ngi fi ba tey. te loolu dina continuer xalifa dina ko dox. loolu moo am solo leneen yëpp ay waxi kii la rek ay manipulation pour que opposition bi bañ a nekk benn. Mhm. manipulation yi rek. dégg naa dégg naa ay am nga dégg naa moom mooy loolu. Hmm. mun nga dégg lu nekk. alors jàll ci actualité bi